dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo réero amul ñàkk waxtaan moo am jamono ji nag réew Mauritanie ak réewum Sénégal jàmm nee na ñooy ak déggoo daal nay am ci ñaari réew yi yéenekaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal nañu ginnaaw bi nga xamante ni nag Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani daat nay falu ci réew Mauritanie gis nañ ne maanaam ma ngi teg ay jéego yoo xam ne moom ak Macky Sall jëm na ci gën a rataxal maanaam réew Mauritanie ak réew réewum Sénégal te nag xam ngeen ne ñaari réew yi yàgg nañu am ay jafe-jafe jamono ji nag maanaam ñaari réew yi ak déggoo daal nay am ci seen biir bu ñu sukkandikoo ci yéen kaay gi di réew mi ko quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu visite officielle bi nga xam ne njiitu réew mi di Macky Sall ma koy def ca diwaanu Mauritanie daal nañuy signé nag ay accord de coopération yoo xam ne maanaam yu am njariñ la jëm nag ci wàllum énergie maanaam ak lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum napp gi ndax ñaari réew yooyu dañu doon faral di ñàkk ak déggoo ci lu jëm ci ay licence de loole lépp nag Macky Sall jamono ji man kay daal di lijjanti daan nañuy signé tamit ay accord de coopération jëm ci wàllum sécurité yéen kaay gii de la Soleil mu ñu xamal ñu en tout cas li nga xam ne moo ambade sa diggante njiitu réew mi di président Macky Sall ak njiitu réew Mauritanie jamono ji ak déggoo daat nay am daat nañuy signé nag ay accord yoo xam ne maanaam yu am njariñ la journal bii di laasa mu ñu xamal nañu Macky Sall nag mbaadu Macky Sall dafa dem ca Mauritanie te yóbbaalewul xaalis ndax nag ñi nga xam ne ay militant APR la ñu te nekk ca Mauritanie ñoom ñëpp ñëpp ñëpp maanaam juróom benn million kese rek dong la leen Macky Sall daa di boole journal bi di laas moo xëy di ñu ko xamala yéen kaay gi du l'observateur mu xëy di ñu xamala ñu Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xam ne moo jiite au conseil des collectivités territoriales te jiite jamono ji parti bi di parti socialiste maanaam moom ma ngi teg ay schéma di def ay stratégie ngir nag écarter Khalifa Sall ci mairie bu Ndakaaru ak nag lépp lépp lépp loo xamante ne jëm na ci parti socialiste maanaam jamono ji daal Aminata Mbengue Ndiaye daal nay takk ndiggam daal di musóor waat fas yéene jàmmarloo ak kalifa Sall ngir nag daal di kay sànq yéen a kaay gii de la témoin ak l'observateur ak enquête ak Sud Quotidien daal di xëy ci dialogue national bi nga xamante ni ak ñàkk déggoo ci boppam bu ñu waxantee dëgg maanaam moo ca am l'observateur mu ñu xamalaan ñu dialogue politique bi maanaam démb dajee nañ waaye nag dafa mel ni ay tëx yoo xam ne daal maanaam ñuy waxtaan ci seen biir ndax lépp loo xamante ni jëm na ci article article quatre-vingt jëm ci arrêté Ousmane Ngom jëm ci cumul manda ak nag njiitum réew amatul sañ-sañ jiite nag a parti loole ci boppam ak ñàkk déggoo moo ci am diggante ku jéggi ak ñi nga xam ne maanaam ñooy majorité bi yéen kaay gii de la témoin mu ñu xamal na ñu ngir nag noppal sénégalais yépp ngir noppal sénégalais yépp dialogue national bi ndax munuñu woon ko teg ci suuf seet leneen loo xamante ni maanaam moom la ñuy def ba tey journalub Mamadou Oumar Ndiaye bi di wax ne dialogue national bi nag maanaam bunt la boo xamante mën nañu koo ubbil xalifa Sall ak Karim Wade su doon su doon ak déggoo daat nay am ci seen biir yéen a kaay gi di enquête mu ñu xamalaañu nag lu jëm ci nekk chef de parti ba pare jiite am réew loole nag ñi nga xam ne ñooy majorité bi bëgguñu kenn koo xamante ni maanaam ku ko tudd la ndax nag xam ngeen ne sal Sall moo jiite réew mi ba pare nekk chef de parti yéen a kaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamalañu ñi nga xamante ni kay maanaam ñooy majorité bi ñoom ci dialogue national bi bëgg ñu faa dégg benn yoon ku fay proposé di wax nañ njiitum réew sañu te nag nekk chef de parti yéen a gi mu ñu xam nañu bu ñu waxante dëgg dialogue national bi ak dialogue politique bi yépp si yam jamono ji nag dafa daal di bloqué wu yéen a kaay groupe Futurs Médias gi mu ñu xamal nañu étudiant bi nga xamante ni nag moom la ñu rayon ci université Gaston Berger ba sa Saint-Louis di fàllu seen ngir nag bëgg mbiri leera lieutenant Moustapha Sané mi nga xam ne moom lañ njort ne moo def googale giraawaali doyen des juges Samba Sall daan na koy déglu waaye tamit daan nay déglu recteur université ba di Baydalaay Kan déglu na tamit directeur bu CROUS di Ibrahima Diawo yéen a kaay gi mu ñu xamalaan bëri na tamit ay témoins yoo ne daal di nañ leen di déglu journal bi di Vox mu xëy dikkal ñu ci liggéey bi nga xamante ni waa douane daal di nañ koy def lu matul fukki fan rek jàpp nañ ay faux médicaments yoo xam ne bi ñu ko xayma toll na ci xaaju milliard yéen a kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamalaan ñu faux médicaments yi jamono ji nag maanaam mi ndax ca diwaanu Kaffrine jàpp nañ fa lu médicament yéen a kaay gii ko di Quotidien dikk nag ci maître Omar Youm mi nga xam ne mooy ministre bi ñu dénk wàllum transport ci réew mi ginnaaw lettre bi nga xam ne bindoon na ko maanaam kilifay France ngir nag naqarlu seen ambassadeur bi ak kàddu yi mu yëkkati woon wax ci autoroute à bi wax ci terre bi lettre boobu nag maanaam bu leen jàpp na yegg na France lettre ba yëggul ndax ki nga xam ne mooy Amadou Ba ministre bi ñu dénk mbirum affaires étrangères maanaam moo si teg tànkam moom Amadou Ba moo ko bloqué li tax mu bloqué ko maanaam benn yoon maître Oumar Youm di ŋàññi ambassadeur France bi nga xam ne maanaam moo nekk ci Sénégal yéen a kaay gi di Libération dikkal ñu ci benn waay boo xamante ni tonton lui la tudd moom nag ca Joal la nekk yor ak fetalam di kar ñi nga xam ne ñooy xale yu jigéen yi maanaam di leen xuppu di leen di tëddee ngir fetal gi nga xam ne maanaam moom lay ŋàbb moom tonton lui journal bi nag mu ñu xamal naan ñu am na ñeenti xale yu jigéen yoo xam ne ay élèves lañu di jàngee ci école Waly Diouf ba sa Joal tonton lui moomee nag daat na leen di tëddee caxt caxt leen sim ak ñoom seen mari ngàññee yéen kaay gii di réew mu ñu xamal ñu benn waay boo xam ne Mamadou Bente la tudd moom nag nijaayam la rey mbir mi ca yëmbal la xewee daat nañ koy atte ca fukki ati la ñu wax ne moom lañ koy daal di tëcc journal bii di record mu ñu xamal la ñu Liverpool ak Paris Saint-Germain ñoom nag daat nañu ñàkk ni ki ci huitième de finale yi journal bi nee na Sadio Mané ak Gana Gueye ñoo ngi ci sursis maanaam benn tànk la ñu taxawee ñoo ngi ci danger stade yéen kaay mu ñu xamal la ñu Liverpool ni ki démb maanaam daf ko lalal ak ndëgg sërëx Sadio Mané nag première mi-temps bi rek la daal di football Paris Saint-Germain nag ñoom ni ki démb benn joueur bu ñuy wax Alan maanaam moo leen daal di sànq ndax moo leen maaj maajee maanaam defal leen bagage defal leen affaire yéen kaay gi di sunu lamb xëy di ñu xamal naa ñu VIP yi nga xam ne ñoo nekk ci lamb ji maanaam ñi nga xam ne ñooy woowee seen bopp ay kàngam ñoom ñëpp ñëpp jamono ji maanaam ay chômeur lañ dalee ko ci Balla Gaye numéro 2 Giri Bordeaux am seen tafatin jamono ji bëri na ay VIP yoo xam ne amuñu benn yoon combat la ko waral nag bokk na ci bang bang yi nga xam ne ak njëg yu cher yi nga xam ne moom la ñuy laaj ngir sëgg bëre